Hmm, ba nekk fa provis euh, ba nekk professeur ci lycée ba nekk fa proviseur xeeb jàngam xam ne anglais yi ku bëgg a jëflante ñoom war ngaa am xam-xam mu décidé pour dem états uni jàngi wax na ci autobiographie bi mbind euh, tudde ko My Life euh, dafa ne na am nijaayam sax ju nekkoon Lagos mu bugg dem fa pour mu dimbale ko ci lu mu demee mu dem burle ci gaal mel ni toggkat mu ne waaye ba mu demee itam jëlewu fa dara ba mu ñëw mujj daal bon fexe na ba dem euh, am fa fukki at ci université Lincoln jàng fa ba jàngale fa def fa ñeenti licence ak benn diplôme supérieur planifié pour benn thèse bu mu tuddoon Mine and Thought in African Societies dama xam kuruma ndax liggéey naa ak moom euh, léegi mu mu mu mu ne mu am fa mu mu ne day ñëw London jàng fi droit comme dafa bëgg a def politique ba mu ñëwee diggante boobu am congrès bu amoon Manchester leader politique yu bari yu doon bañ daje fa mu fekkee ko nag ñu ràññi ko fa bayaan ba sax moo ko bindoon te soppi na ko téere towards African freedom waaw léegi gaa ñi nekkoon ak akar am fa parti comme ni la muy ngay defoon Senghor ñu bind ko ne ko na ñëw dimbale leen yàggul ñu uute ci moment booba booba ci la bàyyi jaar Accra am ku ko woon ne sëriñ bu mag ñëw na fi dal kër Ahmadul Fouti bàyyi booba moom lay wax naan wa faydu rabbi kaana kal ëtti yi dafa am chance mu ne unziltu inda Ahmad al Fouti yi wa faydu rabbi kaana kal ëtti yi ñu dalal ma kër Ahmadul Fouti fekk faydu son borom ma ngay sotti ni ni ni yolnde boobu la fa kurma dem dafa am chance yóbbu ko fa ñemewut mu ne nañ fay lampi buntu kër gi ak yooyu pour bu fiy jaar gannaaw gi ne naa ko président xanaa boobu xamul ne booba la la anglais yi gën a gis rek ba nga fayee lampi lay son bàyyi ne ma ma laaj ko loo bugg wax ko nag ma daal libéré Golgos noonu la tuddoon Golgos waaw développé ko bàyyi ñaanal ko mu dem commencé combat gars arrêté ko partem gagné ñu génne ko ci prison bi directement à la présidence comme Nehru ci Inde mom nak mom chrétien la bi mu judo mais euh na limu nek yépp ci biti ak limu mu yëpp musul communiste euh, te nee na itam dal nawna ji te a mus naa dajeeg Chérif ca Kankan lii nag bàyyi ko ne moom incha allah da ko am mu dem falu cinquante sept ñu am indépendance bàyyi jaar fa at mi yaa ma njëkkee aji ñun ña nga mag alaaji Abdoulaye ca xaayira ñu dajeeg moom ca Makka léegi soixante et boobu kur ma na ko mais soixante et un non non non ko soixante et mu nag mu invité ko officiellement mooy bi ma waxoon sànq ba mu ñëwee ganu nguur rek gannaaw ga nag léeg bàyyi jaar fa nekk ganam ba ca mujj dem nañ fa benn waay man ak kenn ak bàyyi ñu dem kuruma toog ak bàyyi ak nijaayu kuruma ak benn conseiller kuruma nijaayu kuruma ji jullit la kafaale ko ne Cheikh doo digal koom yi mu tuub waa ji tarjuma bàyyi na ko déet ñun duñ digal kenn mu tuub dañ mun nañ koo biralal lislaam su ko doyee mu tuub waaye nag na koom yi xam ne moo soxla lislaam moo gën a soxla lislaam kër lislaam moom ku mag rek koy wax xaw kurma ne lu mu wax rek de xam nga moo ci maslaa nii rek léegi nag alhamdulilah bon ba kii bàyyi dimbale na ko ñaanal na ko am na sax benn euh, référendum boo xam ne bàyyi yónnee na ko benn note euh, yónnee na benn lettre julli ñi day wax na ngeen wootee woy ngir nangam woy nangam journal yëpp génne ko bàyyi campagne la ko waaw waaw mus bon na may bàyyi benn oto benn bug hmm, comme ça mais nag xaalis buñ mën a tuddee xaalis amul benn chef d'état boo ko mës a jox bàyyi ngeen xam ko ay xaalisantu rek lu ci ëpp daal ci lu mos a jot Faysal moo ko jox Abdou te moom la jëndee woon école boobu mu defoon ci dakaar benn dërëm lekku ci ñi ci des ay kii waaye nag kóllëre doxoon seen diggante hmm. Hmm. Hmm. kon nag kuruma ak baay